tey ñu ñëw fii eh, si école bi nga xamante ni lu ñu nekk rek mën nañ ni eh, si école bi moo ci jiitu parce que parce que mu ñu formé donc bi ñëwee aussi def nañ eh, une visite de l'école xam ni aussi nekk na si état. de délabrement très avancé donc je pense que ni euh, avons bien concept bo xamanteni pour retourner à l'école de base wo les personnes de bonne volonté nous ñu vraiment japp euh, le développement de l'école de base donc je pense que même même le président de la République euh, en 2014 il avait fait un appel pour que les surveillants puissent retourner à l'école de base pour leur apporter leur soutien. Donc, nous avons ni nga ko dañu pour lancer début cours de vacances yi nga xamante ni jox nañ ko ndaw yi nga xamante ni dañoo war ay classes ni classe de cm classe su seconde classe troisième classe terminale pour que nous puissions leen renforcer jox leen ay cours de vacances loo xamante ni li nga xamante di pertoon nañ ko scolaire bi passé ñu xamanteni kat euh, fièvre bi di coronavirus. mo taxone matalu ñu won seen heure yi nga xamanteni mom lañ doon jàngé moo tax tey damay remercier la jeunesse du mouvement Siggi Jotna ñi nga xamanteni tay tey ñoo am cet engagement civique euh, organiser ay cours de vacances. de gratuit ah, amul fay amul dara parce que dañu gis na kat li ñuy def ni dañ ko wara def ngir apporter sunu soutien à l'endroit de nos élèves. Mais également, euh, organiser aussi une journée don de sang. Parce que tu as euh, dëkk bi xam euh, hôpitaux yi traite donc nous tax sensibiliser de participer à renforcer banque de sang qui nga xamante mon hôpital Eh, El Hadji Mame Sakhir ndieng donc ñu ngi remercier ñëpp parce que tey am na affluence bu mag a mag ñu ñu woo ñëpp ñëw nañ lii day wane rek am na acte yoo xamante ni ay acte de citoyenneté la ay acte civil la donc gis nañ tey waa Thiès ñëpp ñëw nañ jàpp si joxe seen deret gën a rek lancer nit ñi ñu xam ni fa am solo parce que nga joxe deret je pense que ñun ñëpp mën na nekk si situation boobu donc heure bu ñu waree sant sentir war nañ mëna joxe suñu deret rek war nañ ko def té loolu lépp comme ni ma koy waxé rek damay remercier di féliciter la jeunesse de Ziguinchor bi nga xamante ni tey ñoo teg de initier les vacances utiles té tay ku gis xam ne activités yi ñuy def ay activité yu am njëriñ la ay activité yu utile la yu répondre aux préoccupations des populations donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mais également ñoom it ñu ngi leen di remercier di leen féliciter si euh, euh, activité bi ñu avons def sensibiliser nit ñi ci feebar bi Covid 19. fan yi cas donc nous, nous félicité parce que le président de la République son excellence. Macky Sall lancé un appel à la jeunesse mais si nous avons ni la jeunesse c'est ce qui nous a fait dugg si si gox yi ak si gox-goxaan yi sensibiliser leen di wax ak ñoom pour ñu respecter les mesures et gestes barrières. ànd seeg nag ay dons lu si mel ni ay gel ay masque jox nit ñi moo tax tey. si damay profiter si occasion bi di ñaaxaat ne feebar baa ngi fii ba léegi nii feebar bi jeexagul. donc bu ñu bàyyi nañu gën a jàpp continuer xeex bi parce que feebar bi benn ennemi la rek donc bu ñëpp jàppee xeex ko mu deñ te it ñu ngi jëm si màggal Touba. Nous pèlerins yi respecter les mesures et gestes barrières dem si respecter la distanciation si transport bi si yoon yeeg ci donc donc remercier encore hum, toute la jeunesse du mouvement C'est un engagement bi nga xam pour à tout moment répondre à des actes civiques et actes de citoyenneté